nekk nag nga xam lan nga war a def ndaxte ñiy jàngale ak étudiants yi dañ leen war wax dëgg njaaxum ya fa nekkoon ya fa amoon ci ci weer yële lakk be kërti kërti yooyu ñu koy def nañu xëcc seen nopp bu baax yar leen baax te loolu jaaduwul waaw yooyu jàngalekat yi itam lañu def la ñu war a def gouvernement bi la mu war a def mu def ko loolu bu ñu ko defee jàmm de ndax université nag ñëpp ko moom ñëpp ko bokk ñëpp ko moom waaw euh, te nañu gaaw ubbi ndax te euh, xale yi lañ nekk dakaar la ñuy wax dëgg la université bu Dakar boo ko dul jàng moom xëy na buy am itam day day suux xale yi am baccalauréat fu ñu leen di dugal ren ak ñeneen ñi amal yeneen baccalauréat bon nañu def gaawantu jàmm dug dugg ku ci nekk la nga mën nga def ko.